Assalamualaikum, ah, mami naa sambo, sambo sàmb naka yittey bàyyi yaram ci jàmm ana nabu nabu ana nabu naa kor, kor koor naka yitte waaye ah, nabu sa sant bi moom santulum kor mooy lan ah. ya tamit nag wallaay achi maa ngeen di nuyu naka waa 2A TV ba ñëpp ci rek ana Ahmed wallaay achi maa inuyu koy nuyu jottali leen sama Ndiaye Ahmed Aïdara moo xorom mu lekk anama Anta ak Mansour nuñ def ñoom ñu ngi ñooy ñooy nekk ci kii bee technique bee waaw kumba ñoom oui ma s'il vous plaît am ngeen deux minutes seen temps am ngeen <laughs> wallaay asu merci beaucoup man da ci fajar laa toog rek gone yu yónnee ma vidéo bi ma gis seen plateau bi yéen daan ndeysaan ndekk te yéen nii ngeen baaxee ah soxoru de wallaay Hachim taxaru leen vidéo bi de wër na Sénégal moom vidéo bi ngeen def ci man ma pacte ko ma euh, TikTok bi wër na Sénégal wallaay Hachim wër na Sénégal <laughs> moo tax ma ne war naa def vidéo bi rek daal leen remercier remercier leen ne leen jërëjëf jokka njël happy birthday to you joyeux Noël yal na yàlla fay leen seen xol baax ngeen simple ngeen seen greffage yàññi na <laughs> Mami sambak na bukar. Walay asim niya karamurek. Yay.